salaamaaleykum gars yi naa leen daleen ak jaamu Sen Sport 221 Ismaïla Sarr l'international sénégalais moom na kayiti xibaar yi fesal nañu ne jamono yi Watford dañoo lànk ne duñu ko bàyyi ngir mu war a mën a ñëw teew ànd ak gaynde yi dem ci li nga xamante ne mooy CAN bi moom nag xam nga waxoon nañu fi ne dafa am blessure te kayiti xibaar yi fesaloon nañu ne ñii di Watford dañoo waxoon na kii di Ismaïla Sarr fii ba janvier bi di dee ci lay soog a war a mën a dellu si loolu nag nekk loo xam ne xëy na tey na xelu ñi nga xamat ñoo de fédération sénégalaise de football ñoom nag li ñu laaj mooy jamono yi ki nga xamante mooy Ismaïla saar ñu daal di koy bàyyi mu ñëw xëy na suñu yooyu ñoom dinañu def seeni euh, mbir maanaam gëstu càmbar mbir yi ba xam exactement ndax ki Ismaïla Sarr dina mën a dem ci kan wala dana mën a football wala déet waaye loolu sax ñii di dañu ko bañ te ànd ak loolu ki nga xamante ne mooy Ismaïla Sarr moom dafa bëgg a ñëw loolu la kii di xibaar yi fesal Ismaïla Sarr wax na leen carrément moom dafa bëgg a teew ci li nga xamante ne mooy sélection bi waaye Watford ñoom bàyyi ñu xel mukk bàyyi ko ngir mu ñëw xam nga date bi nga xamante ne moom la FIFA appaloon yii di club yi ngir ñu bàyyi seen joueur mooy le 3 janvier kon mën nañu wax ne fileeg suba rek joueur yi nga xam ne ñëwaguñ woon ñëpp war nañoo mën a teew ak li nga xamante ne mooy seen sélection Ismaïla Sarr nak mom gannaaw bi nga xamné fédération bi def nañ seen communiqué dal di deng mam nakarlu li nga xamné mo xew ñu ngi may for fi bala 3 bi passé ndax dinañu bay Ismaïla Sarr mu ñëw wala det bu fekkente ne lolu amul ñom dinañu def li nga xamante ni moy seen clamé ci FIFA gi nga xamante ne mo wara atte kon su fekkente ne lolu amna wat for ay daan war na dal seen kaw ndax jour bi bu fekkente ne li nga xamante ne sélection nationale am dañ ko soxla noo mën a def da ko war a bàyyi ngir mu dem ñoom donte ne dañu ne Ismaïla Sarr dafa gaañu Sénégal ñoom bu ñu xamee ne Ismaïla Sarr dafa gaañu xalaatuñ ko sax dugal ci li nga xamante ne mooy terrain bi waaye na ñëw ñu daal di xool mbir yi ndax moom war na mën a dem jouer ci CAN bi wala déet te di xibaar li ñu fesal mooy Ismaïla Sarr ci jëm boppam moom dafa bëgg a ñëw xëy na bu ne yëgul ci yaramam loo xamante ni jàpp na ne bu ñëwee ci CAN bi war a mën xëy na du doon bëgg a ñëw waaye ak bëgg gi mu bëgg ñëw yépp ak li nga xam ne nii di bi ñu ngi ko koy xaar Watford ñoom dañoo lànk ne duñu ko bàyyi kon fileeg euh, ginnaaw suba xëy na wala fileeg suba wala ginnaaw suba dinañ ci xam lu leer ndax Watford dinañu bàyyi Ismaïla Sarr wala dañuy continuer di dëgër bopp di xaar li nga xamante ne mooy daan yi leen ci war a fekk fileeg suba dina leer ki nga xamante ne moom la ñu njortu ne xëñ na war na mën a remplacer Ismaïla Sarr mooy Opa Nguette bi nga xamante ni dafa bokkoon sax ci joueur yi nga xamante ni ñom lañ tuddee won les quatre réservistes ndax amon na ñent jour yo xamanteni ki di Aliou Cissé daf leen dégg nga maam euh, à côté euh, ngir bu fekkenté né dafa am ay jour yu ñu wara remplacer ci ñoñu lay jël Opaguet mi ci la bokkon té xëy na moom moo gën a jekk ci remplacer Ismaïla Sarr ndax kii di xibaar dañu fessé ne jamono yi di FC Metz tay dañu daldi nga ne di dafa daldi am li nga moy corona kon dañ ko daldi test positif ci corona bi mom ki di Opaguet lolu warna ba jamono yi na bu fekkonté won ne Ismaïla Sarr ñewut wala mom war mëna ñew nga maam fekke ci gaynde itam xëy na ca kanam lay doon ndax jamono yi dañ ko dal di test positif loolu war na sax ba bokkul woon ci match boo xamante ni FC Metz amoon nañu ko tey ji dégg ci match boo xam ne ñu ngi ko doon joué seen diggante ak Sedan Opanguet bokk ci woon ndax dañu ko dal test positif bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi ki di Ibrahima ñaan ba tey nekk foofu nga xamante ne ci FC Metz moom nag moo dugal benn bii boo xamante ni Metz am nañ ko ci jongante googu doon dox seen diggante ak Sedan moom kii di Ibrahima ñaan ndax Metz ñoo door Sedan benn bal ci dara Ibrahima ñaan mii mooy ki nga xam ne moo marqué benn bal boobule Sadio Mané l'international sénégalais moom daal dinay marqué beneen bii gannaaw bi nga xamee ne kat toogoon na ab diir bu mu dugalul Sadio Mané gëjoon na dugal ab diir sax lu toll ci juróom-ñaari jogante yoo xam ne joué na ko ci English Premier League bi te marqué wul loolu jeex na tax tey jii derby bi doxoon diggante Liverpool ak Chelsea Football Club. Chelsea Football Club ñoo doon recevoir Liverpool foofu la ca Stamford Bridge Sadio Mané moo dal di ubbi caaxi bii bu njëkk moo ko dugal ci dixième minute moom kii di Sadio Mané l'international sénégalais jongante googu dañoo match nul deux partout entre Sadio Mané ak Edouard Mendy kon ñoom ñaari joueurs yooyu nga xamante ni xëy na ñu ngi leen doon xaar tey ji lañ doon joué seen match bu mujj ci English Premier League bi ñuy séntu ni xëy na ñoom itam fileeg suba dinañu war a mën a teew ci les ci bi dégg nga ànd ak gaynde balaa ñu ñëw ci li nga xamante ne mooy li gën a fes ci kayiti xibaar yi foofu la ca bitim réew dañuy ñëw rek euh, woy ci li nga xamante ne moom lañu tàmbali woon démb ñëwoon nañ ci milieu défensif bi tey dañu ñëw ci li nga xamante ne mooy milieu central bu équipe nationale bu Sénégal voilà amoon nañu quatre milieux défensif léegi dañu am quatre milieux centrale ci ñooñu la ñuy ñëw gën leen xamle ak ñoom kan ak kan la ak lan lañ fi def bi ñu ñëwee équipe nationale bu Sénégal ak kañ la fi ñëw lu ñu fi jot def loolu la ñuy ñëw léegi balaa ñu ñëw ci xibaaru bitim réew dañu koy doore ak Idrissa Gana Gueye l'international sénégalais di footballeur fële ca Paris Saint-Germain am lu toll ci fanweeri at ak ñaar 32 am na ko moom kii di Idrissa Gana Gueye moom nag mu ngi juddoo ci Ndakaaru le 26 septembre 1989 kon Sénégal fii la juddoo bu ñu xoolee nag moom milieu terrain la milieu terrain central voilà mën na jouer li nga xamante ne mooy milieu de terrain défensif waaye nag post bi ñu ko gën a ràññee mooy milieu de terrain central moom kii di Idrissa Gana Gueye bu ñu xoolee nag mu ngi ñëw ci équipe nationale bu Sénégal match bi nga xam ne moom la fi njëkk a mu ngi nekkoon la 11 novembre 2011 kon mën nañu wax ne fukki at ak benn lay toll booba ak léegi Idrissa Gana Gueye joué na lu toll ci 83 ci ay match dal dinay marqué lu toll ci 6 bi am lu toll ci deux passes décisives ak équipe nationale bu Sénégal bu ñu xoolee moom Idrissa Gana Gueye ndax mos na joué CAN ah kay joué na ñetti CAN joué na CAN 2015 joué na CAN 2017 joué na kan bii di 2021 bu ñu ca demee boobu moo war a nekk ñeenteelu kan boo xam ne Idrissa Gana Gueye participé na ci ak équipe nationale bu Sénégal bu ñu xoolee li nga xam ne def na ko nag bi saison bi tàmbali ak léegi ñoo xool ndax Idrissa Gana Gueye mu ngi ci forme ndax mu ngi joué moom mu ngi joué ndax joué na lu toll ci ñaar fukki jongante bi bi tàmbali ak léegi 20 match joué na ko ak Paris Saint-Germain marqué lu toll ci 4 bi keneen koo xam ne am nañu ko mooy Pape Matar Sarr moom xale la 19 ans képp la am. moom nag mu ngi judd la 14 septembre 2002 à Thiaroye moom kon Pape Matar Sarr fii ci Sénégal la juddoo moom nag post bi nga xam ne moom lay football mooy milieu de terrain central waaye nag mën na jouer itam milieu de terrain défensif waaye milieu de terrain central mooy poste bi ñu ko gën a ràññee moom kii di Pape Matar Sarr bi mu ñëwee ci équipe nationale bu Sénégal nag yàggul ndax ñeent match la joué gum en sélection deux fois la joué comme titulaire deux fois la joué comme remplaçant match bi fi ñëk a nak mo mu ngi ko joué le 26 mars 2021 loolu yàggul mom ki di Pape Matar Sar bi xolé nak bi saison bi tambalé ak légui joué na lu tollu ci 19 matchs kon mën nañu wax né danaka match yi FC Metz joué ci saison bi yépp daf ko daldi football Pape Matar Sar joué na lu tollu ci fukki jongante ak juroom ñent marqué na benn bal joxé benn passe décisif mom ki di Pape Matar Sar kenen ki ci top moy Moustapha Naam Moustapha Naam di footballé fële ci Paris FC. moom naka mu ngi am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-benn 26 ans la am mu ngi judd la 5 mai 1995 moom nag poste bi nga xam ne ci la ñu ko gën a ràññee mooy milieu de terrain central donte ne mën na jouer li nga xamante ne mooy milieu de terrain défensif Moustapha Nam mu ngi jouer lu toll ci 5 match ak équipe nationale bu Sénégal ñeent wala juróomi jongante la fi footballagum juróomi jongante yëpp daf ko jouer comme remplaçant maanaam dooru jongante gi waaye day dugg ci biir jongante gi. match bi mu fi njëkk a joué mu ngi nekkoon la 11 novembre 2020 ndax mos na joué kan Moustapha Naam joué gul kan moom ak Pape Matar Sarr kenn ci ñoom joué gul kan bii moo war a nekk njëlbéenu kan boo xam ne war nañ cee war na mën a participer moom kii di Mustapha Nam ak Pape Matar Sarr yëpp. bu ñu xoolee match yi mu joué gum bi saison bi tàmbalee ak léegi mu ngi toll ci 18 match marqué na lu toll ci 6 bi ak ñeent passe décisif. ki nga xam ne moo leen ñeenteel mooy Joseph Lopi di footballé ci Soso moom nag 29 ans la am muy ñaar fukki at ak juróom-ñeent Joseph Lopi mu ngi juddoo la 15 mai 1992 fii ci Sénégal la juddoo moom nag post bi nga xam ne moom lay football mooy milieu de terrain central waaye tam mën na jouer comme défenseur central waaye poste bi ñu ko gën a ràññee mooy milieu de terrain central moom kii di Joseph Lopi. moom nag joué na lu toll ci 5 match ak équipe nationale bu Sénégal 2 yi daf ko joué comme titulaire 3 yi daf ko joué comme remplaçant. moom nag match bi mu fi njëkk a joué mu ngi ko joué woon le 9 octobre 2020 moom kii di Joseph Lopy moom nag bu ñu xoolee li nga xam ne def na ko bi saison bi tàmbali ak léegi ak clubam toll na ci 13 yoo xam ne joué na ko maanaam fukki jongante ak ñett marqué benn bi moom kii di Joseph Lopy. lii la ñu fi amoon comme 4 milieux de terrain central ak équipe nationale bu Sénégal joxoon nañu leen ni ki démb 4 milieux de terrain défensif yi ñu am muy juróom-ñett ci ay milieux de terrain dañu ñëwaat beneen yoon li nga xamante ne mooy ci wàllum attaque bi. bitim réew ki nga xamante ne mooy Lionel Messi moom dañ ko daal di test positif ci corona bile moom ak ki nga xamante ne mooy Juan Bernat ak Sergio Rico foofu la ca Paris saint kon kii di Lionel Messi du bokk ci match yi nga xam ne Paris Saint-Germain ngi koy waajal gannaaw bi ñu ko testé positif ci corona bile. ki nga xamante ne mooy Anthony Martial bu Manchester United kayit xibaar yi fësal nañu ne jamono waxtaan baa ngi daw diggante Manchester ak Barcelone jamono yi nag benn deal la ñu teg mooy Ousmane Dembélé Manchester dañu ko bëgg signé ci janvier bii. ki nga xamante ne mooy kii di Martial day dem foofu ca Barcelone dañu leen koy abal loolu mooy waxtaan bi nga xam ne moom la ñuy waxtaan juróom-benn weer la Barcelone bëgg a ki nga xamante dañuy jaay Ousmane Dembélé foofu la ca Manchester United ci janvier bi le waxtaan baa ni nag mooy coach bu Chelsea football club di Thomas Tuchel moom nag kayiti xibaar yi fesal nañu ne moom nag dafa dal di génne kii Lukaku ci match bi Chelsea doon am dal dinañ expliqué nag li waral ba boole wut ci ki nga xamante ne mooy Lukaku nee na li nga xamante ne moo xew dafa rëy trop te it coow li dafa bari te dafa jege lool match bi nga xamante ne ñoom ñu ngi ko waroon jouer seen diggante ak Liverpool moo waral mu daal di koy écarter boolewul ko ci match boo xam ne Chelsea ñu ko doon jouer tey jii seen diggante ak Liverpool nee nag moom mu ngi continuer di waxtaan ak ki nga xamante ne mooy Lukaku nee na waxtaan na ak moom ñaari yoon kon li nga xamante ne moo xew rek mooy coow lu bari li ak li nga xamante ne mooy xew-xew bu rëy bi loolu képp a tax mu écarter ko waaye ñoom ñaar dégg nga ñu ngi wéy di am li nga xamante ne mooy seen waxtaan bu ñu sukkandikoo ci kayiti xibaar yi Real Madrid moom dafa ñàkk matcham bu njëkk bu mu joué ci 2022 bi te xam ngeen ne Real équipe la boo xam ne joué na bi ba mu jeex ñaari défaite képp la ci am deux défaite képp la Real am ci atum bi ba mu jeex ci li nga xamante ne mooy championnat di La Liga. waaye nag at mii di 2022 ni mu ko ubbee neexul ndax match bi mu njëkk a joué ko ñàkk seen diggante Xetafe benn bal ci dara.